asalaamaaleykum Mbacke maa ngi nuyu ñi ñu dalal yëpp tey ku gis li ngeen wane bi ñu duggee ci dëkk bi ba tey te seen yéene ñi ngeen ci ñun ak li ngeen ñu bëgg ci ñun gën a kawe loolu waa Mbacke xàmme nañ ñi nga xamante ni dañoo dugg ci politique ngir tappale ak wuruj ak combine bëre ak ñi nga xamante ni dañoo dugg ngir am yéene sàmm ndono yi waaye jëlee senegal fii mu nekk yóbbu nga foo xamante ni fu sori la. Mbacké sonn na Mbacké sonn na ci digaate yi Mbacké sonn na ci ñàkk infrastructure Mbacké sonn na ci ñàkkum ndox mu neex Mbacké sonn na ci jigéenam yu sonn Mbacké sonn na ci ndaw bi nga xamante ni amuñu dara lu ñu dundale seen njaboot tey lu dul Jakarta loolu moom moo tax ñun ñu jóg xàmme ngeen bu baax choix bi ngeen war a def le 24 mars 2024 mooy jël ki nga xamante ni moom mooy Pape Djibril Fall ngeen xam ko xàmme ko lu jiitu muy dugg ci politique ngeen xam ko ci dëgg xam ko ci fulla waaye xam ko ci loxo yu set wecc ak yu sell yoo xamante ni bu yore Sénégal dina ko teg ci yoon. Mbacké symboliser lu bari ci ñun suñu dund symboliser lu bari ci histoire ak géographie Sénégal loolu moom moo tax duñu ko café duñu ko caaxaane duñu ko fooye xam nañ ne le 24 mars 2024 ñun coalition Papa Djibril Fall waa Mbacké dinañ ñu voteel coalition coalition Papa Djibril Fall mooy coalition bi nga xamante ni Sénégal ñoom ñoo ko tànn kenn tànnalu leen candidat senegal bu leen kenn tànnal candidat képp koo xamante ni da ngaa a jiite réew mi na nga yëkkati sa loxo ne da ngaa bëgg a jiite réew mi ñu xool sa loxo yi ndax set na ndax sell na ndax mucc na ayib te loolu ci coalition Papa Djibril fal la nekk Sénégal bu bees la ñu soxla Sénégal boo xamante ni dafa soxla ay ndaw ndawam ndaw yi am war ma am teggin am yitte Sénégal dafa soxla ndaw yoo xamante ni dañu am xarañteef bi dañu am xamxam xam bi dañu am xikma bi dañu am fit bi dañu am jom ji dañu am ngor gi dañu yërëm jigéen ñi dañu yërëm ndaw ñi Sénégal mooy dëkk bi nga xamante ni ngëm moo ko lal ak yar ak teggin coalition Papa Djibril Fall dañoo jël magu Sénégal def leen jës cëslaay ngir développer Sénégal moo tax ñu bëgg coonoy senegal jeex takk nii mu xawee Mbàkke noonu la xawee fépp ci senegal continuer leen liggéey bi ci terrain bi waa Mbàkke sama xol sedd na ci yéen dama bëgg dundalaat yaakaaru ndaw ñi daal di dalal xelu mag ñi en avant incha allah la victoire est leen di gërëm baax ngeen sant jërë ngeen jëf